di jéggalu ñëpp ci déplacement bi parce que c'est évident que ñu wootee daje mu toll nii ci distance bi ñu ko wootee autant de responsables teew mu mel ne ni ma dégg organisateurs yi wax buñ ko liitewul woon du ñu xëj ci béréb bi nga xam ne fii la ñu nekk tey nag muy bis bu historique ci dundu parti bi mais ci dundu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci commune Kër Moussa ndax commune Kër ci quatre communes yi nga xam ne ñoo composé arrondissement bu mu am rôle bu am importance aussi bu mu ci war a jouer concernant élection bu mu mënti doon rawatina ne élection législative yi nga xam ne ci la ñu jóge mu nekkoon élection yu jafe ci point de vue mais aussi situation politique du pays pourquoi mu jafe woon ci ñun mooy au niveau de Kër Moussa amul woon benn candidat ni titulaire ni suppléant dans toute la commune du liste nationale du liste mais ci loolu Benno Bokk Yaakaar ñu am ci directive yi nga xam ne moom la président joxe woon ñu am benn candidat candidat bi moo doon lan candidat wu Kër Moussa mooy la commune de Kër Moussa moo nekkoon suñu candidat pourquoi mu nekk suñu candidat mooy Kër Moussa la ñu am nañu def tout pour gañe ko yàlla dogal cinquante bureaux de vote moom la ñu am fii ci commune Kër Moussa avec plus de dix-neuf mille cinq cents inscrits ngeen baal ma ci chiffre yi ci wolof parce que moom ngay wax bu doon séeréer xëy na moo ko waxee bu jub waaye bu dee ci wolof danañ bañ ñëw mu am ñu amoon lu ëpp dix-neuf mille inscrits mais ci loolu yàlla dimbali nañu ba ñu gagné élection yi à plus de 71 virgule 8 pour cent malgré l'absence de Kër Moussa ci candidat yi nga xam ne moo fi amoon loolu nag li ko waral mooy lëkkaloo bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar lëkkaloo nañ ko ñu ànd liggéey résultat bi ñu am ñu am ci tout président de la république parce que moom mooy président Benno Bokk ba mu ñu recevoir yàgg na la mu ñu waxoon ñu war koo wàcce ci base bi yàgg na mais xëy na tey la ko yàlla dogal parce que bu fekkee ne sama mémoire baax na ñu ngi demoon élection 30 juillet 2017 quelques après précisément le 10 août am ndogalu yàlla bu daal suñu xaw ñun ñëpp tere ñu activité yu bari mënatuñ ko def ma profité ci occasion bi remercier ci ñëpp seen taxawaay commune bi yëpp góor jigéen mag ndaw vraiment bokk ak ñu bokk ak ñun tiis woowu nga xam ne moo daloon ci suñu kaw loolu occasion bii laa am pour mën ci profité sànga ci ñëpp gërëm ci ñëpp rawatina les responsables élection yooyu président wax ne nañu wàcc ci base bi remercier leen mais remobiliser waat pour bi pour que yi nga xam ne moom la ñu jëm ci kanam te dinañ ci ñëw léegi ñu xam nan lañ koy préparé loolu moo tax ñu woote tey assemblée générale boo xam ne li ma ciy wax comme dernier mot te yegg moo ci mooy fii ci commune de Moussa ubbi nañu suñu campagne électorale tey à moyen deux ans élections présidentielles je pense que le 17 le 24 février 2019 Inch'Allah, qui ci la élection présidentielle premier tour Madame war a am man loolu dama jàpp ne bëgguma kenn ku fi tour man premier tour ñu teel ko parce que euh, wolof yi dañuy wax ne tibb bi daan mbër du war mu jëm ca làmb ya da koy soog a tibb day fekk mu tibboon ba démb moo tax ñu teel ko bëgg waxtaan ak askan wi ndax loolu la ñuy président coalition Benno Bokk Yaakaar santaane di la président Macky Sall jóg dugg ci nit ñi non seulement ci li ñu mais def préparation ci yi nga xam ne moom la jëm loolu pour ñu def ko il faut ñu nangu benn critique bu ndaw boo xam ne dafay nekk critique mais pour que critique boobu mu nekk une leçon de référence boo xam ne dinañ ci mën a jaar pour rëq-rëq yi nga xam ne amoon na ñu mën a seet nan lañ koy eh, pallier ba loolu bañ a amati wax naa léegi ne commune Kër Moussa amoon nañu cinquante bureaux de vote juróom fukki bureaux de vote moo fi nekkoon yàlla dogal na eh, lii ñi nga xam ne moom lañ ci ñàkk nekk na treize bureaux de vote donc mën nañu wax ne 37 bureaux de vote yëpp gagné nañu ko yenn yi peut li ñu ko tax a ñàkk a bàyyiwul mais man toujours damay wax ne ñàkk na bureau de vote muy 2 points 4 points 100 points c'est pareil au même ñàkkal rek toujours nan lañu war a def ban stratégie lañu war a jël. pour que Dieu de votre Dieu en nañu leen pour ñu mëna def de récupérer ay de votre yoo xam taux bi ñu am dafa wayé au lieu mu ndox mais dafa Il y disposition une disposition pour que looloo wàññeeku woon ñu fexé ñu dab dabaax ak ci lan moo ko posé. waaw ñàkk nañu benn bureau de vote ñàkk nañ dem nañu kër seede je donne exemple damay jël exemple rek ñu baal ma ci dem nañu kër seede bureau ci kii am fukk moo gën a moyen ñu rawee ñu ci fukk point mais lan moo war a ko loolu ñu war ko xool objectivement ñu analyser ko xool li waral loolu su fekkee ne mën nañ ci am saafara daal l'immédiat ñu def ko suñ ko ci mënul am aussi seet nan lañ war a loolu ñu ko te li valable que c'est que valable na Kédougou valable na Ordogo valable na feneen ainsi ainsi donc. ci élection yooyu commune Kër Moussa joué ci rôle bu am importance mooy taux participation bii ci am ci arrondissement kenn amu ci ñaareel bay jëm li ci coalition Benno Bokk Yaakaar gagné kenn gagné woo malgré l'absence bu candidat ko waxee léegi mais référé wu dara ci résultat yi nga xamné mom dañu am ci lolu wax naa leen ne arrondissement Kër Moussa cinq communes mo fi nekk Jaber Kayar Kër Moussa et Fandène quatre communes collectivités locales yépp yalla dogal na gagné ni yépp manam coalition Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk majorité moo ko gagné parti bii ñëw deuxième yeneen parti yi ñi ñëw troisième ñi ñëw quatrième ñeneen ñi mënuñu jël seen résultat parce que c' est insignifiant mais nag dañ ko jël en compte parce que lii laa ñu ñàkk lay jëm ci loolu ñu wax ne bu ñu xoolee 2017 Et c'est pour la première fois. Nous avons des débats de bord en on au niveau de Pérouse. Je parle de Pérouse vie. Nous avons un mot en centre de vote. Il y a huit bureaux de bord que nous avons tous fait. Il y a 8 bureaux de vote. Et nous avons le bureau de Saint-Benoît. On l'a gagné au la félicitations. À plus de 80%. à ces bonnes lois. Au niveau de Pelmoussa, pour des raisons que nous connaissons tous, man moom laa mën a gëm mu ñaari facteur benn bi des fausses informations qui sont véhiculées concernant toog naa je donne exemple du du objet de la beneen bi mooy le phénomène pur yii ñaar bokk nañ ñaari facteurs yi nga xam ne moo tax ñu perdre Kër Moussa te dinaa leen di jox benn exemple bu leer Benno Bokk Yaakaar moo ñëw le vainqueur premier avec près 6000 et quelques voix. Celui va immédiat, c'est plus avec 2800 et quelques. Ce n'est pas les autres partis. D'où nous tout ça Manko. Manko ou Non, non, non. Mais pur nous, nous, nous, ci nous, Benno Bokk nous, du coalition nous, non. c'est important pour loolu ñu xam c'est des yoo xam ne il ñu teg ko ci seen loxo pour ñu xam fenn ku ci nekk li tax ñàkk ko lan mooy cause bi pour ñu xool foofu nan lañ ko war a mën a récupérer ci loolu ñu am résultat boo xam ne dem na ci 48 virgule 11 pour cent lu jar a jàngat malgré qu'on a gagné gagné nañu d' mais atteindre nous taux plus de 50%. Et au travers des élections il faut que ñu waxante dëgg ñu xam nan la def dama wax ni élection yi ñi jot moy li ñoo tudde ci wolof raw gàtt waaw bu ma la ray benn point ñak nga bu ma la rayoon téeméeri point rawee la benn point ñooy raw mais élection yi ñuy jëm te foofu laa defee transition pour l'élection ci élection présidentielle de 2019 élection la yoo il faut que ñu jàll premier tour à plus de 50 pour cent sinon dañuy dem deuxième tour moo tax ma wax deuxième tour moom bëgguma sax ko parce que du raw gàddu bu doon raw gàddu au niveau de Kër Moussa dama leen wax ne de même ngeen tëdd nelaw yuuru bu jotee ñu dem wote ndax ku fi am juróom am nañ fi ku fi am fukk am nañ fi ñaar mais nag problème bi dara loolu il faut que ñu expliquer mu leer ci bopp de pourcentage la pour le président mën a jàll premier tour il faut que ñu gagné avec manière dès le premier tour pour ça c'est faisable mën na nekk nañu ni ci Quel projet projets en 2007 l'actuel président Macky Sall moom comme le directeur de campagne du président Wade Nous nous disons que nous mu mu ànd ak mu ànd kenn laa ci mën a ràññee madame bi mu duggee sama bureau jour boobu lan la ma wax na ngeen dalal seen xel. xam naa ban stratégie laay jaar pour que ñu mën a gagner les élections loolu la wax mais le président Wade a passé au premier tour bu ñu ko fàtte devant Idriss Seck qui était un candidat redoutable en ce moment. et l'histoire se répète dinaa ci ñëw léegi. ci lañ doon wax jinne yee woote. waaw ci lañ doon wax ne jinne yi ñoo doon woote non non non euh, président Macky Sall am na fi mu jaar pour gagner ay élection en 2007 le président Wade di dox di dox ba ñu yegg ci élection 2012 lii am am. mais intelligence su président vision politique mu bàyyi ñëpp ñu nekk place de l'indépendance mu jóg bu jàll bi ànd ak am seede jox dem ci àll bi stratégie ba mu doxaloon président président le deuxième tour xam na ko wax naa léegi 2007 moom moo l'élection, élection mu 2012 mu demal gagné ay élection j'espère très bien qu'en 2019 il va gagner les élections de réew loolu nag du tax ñu tëdd di di crier victoire boo xam ne ñëwagul parce que yaakaar na jóge ci làmba làmba ja di bàkku moo gën ngay def di bàkku ndax xamoo loo fay jëlee bien que euh, am nañu kóolute ak population bi ñu yor ak réalisation yi nga xam ne le président def na ko ak réalisation yi nga xam ne président mu ngi waaj a def daanoo différence commune que ne su fekkee ne liggéey bi moom la xool waxuma fii ñu toog ak Kër Moussa mais dans tout le département de tout le le président dina génn nekk vainqueur dès le premier incha allah ci loolu ñu bëgg tey waxtaan wi comme ni ko orateur euh, ci président de la République waxee léegi. mu jël rek ci ñaari point benn point bi wees nañu ko mooy yi sant gërëm leen vraiment gis nañu taxawaay yëpp ñaareel bi mooy naka la ñuy demee lii nekk ci suñu kanam ñan côté yi nga xam ne am nañu fa ay faiblesse nan lañ koy war a mën saafara ba loola tey euh, yooyu ay solution miracle non mais am nañu yaakaar ci ne fii ci commune Kër six villages trente six villages tey mën nañu taxaw wax ne quelque trois ou quatre villages moom la ñu dese yoo xam ne kenn électrifié lu leen te nag ñu ngi dans le département de Thiès y a douze collectivités locales journaliste yaa ngi fii mën nañu investigation dem naa toutes les communes même les communes dirigées par des ministres taux d' électrification bi am Kër Moussa amul ci benn commune ça je le dis au et fort c' des réalisations tey boo demee dans la zone sud. problème mu ndox posé woon na fi ba léegi sax mu am mais li ma leen di rassurer mooy bientôt Kaay Espoir gis ngeen ko mu leen di traversé tous les villages traversés par Kaay dañ leen di connecté ñu am prise d'eau lu ëpp li nga xam ne moom la ñu amoon dans la zone toujours. il ne vous reste qu'un seul village vous électrifiez-vous et on va les électrifier bientôt c'est le village des Jambo. quand je dis Jambo, c'est Thiambo et Sunu Wolof. c'est le même projet. de même que le village de Gars, pour garder le travail, qui seront électrifiés bientôt.

am lu ñu xalaat wala fu mel ne làng mais dañuy dalal seen xel leneen le président Macky Sall li mu sante mooy nañu dem ci population bi xam seen soxla lañ ca mën a faj ñu faj ko luñ ci mënul faj ñu jox ko mu faj te nag loolu moom la ñu gëm te ci cadre boobu la ñu ñiy wax na il faut ñu bàyyi ñuy wax parce mais eh, opposition il faut que nous parlions de lois. parce que l'homme est mon rek la ñu Nous, Amour leneen lu wax tout récemment maa ngi de kenn à à ngi Dakar amour mais est-ce que le président de l'association des étudiants mu voilà benn étudiants mu fi pour pour leeralal ñu est-ce les étudiants de Kër Moussa li ñu leen defal ban commune moo ko def dans le département. mos nañ leen voilà ils ont dit que ils ont deux appartements à Dakar trois voilà am na ñeneen trois ñoo ko waxal seen donc kon fabriquer des contre-vérités lu yooyu solo yi mel noonu jarul train jarul xam nga li am solo xam nañu à 100 mais li nga xamante ne euh, au ñu ciy jéem loo xamante ne mën nañu ko euh, les de santé yàlla doon na ñaari poste de santé moo fi ne dinaa ci jël si waat tuuti de santé de Sunu Séréer de santé de Kër Moussa pour votre information avec un projet bientôt poste de de Kër Moussa compte tenu compte tenu ci population bi fi ne di ko defaraat beneen poste boo xam ne kii va répondre à toutes les normes incha allah sanitaire te poste de santé mu ne doote lay la benn ambulance mais loolu tayul on est de voir avec nos partenaires pour am benn corps nu tudd corbillard corbillard boo xam ne pour évacuer Euh, semi les les décès vers Touba vers Tivaouane vers Topogine vers où vers où vers où ensuite il y aura une troisième ambulance boo xamante ne kooku dafay nekk une ambulance itinérante nga xam ne ku ñu ko soxlaa ñu woo ko mu dem indépendamment des deux postes de santé dégâts d'égalité des chances et pour les bourses familiales aussi. Il y aura plus de 1000 bourses qui ont été bientôt et des cartes d'égalité des chances. C'est pour vous dire, année sociale, les gens le président vous devez nous à 100% dans notre commune. Euh, Madame le maire, ne na ma léegi am na cinquante yoo xam ne ñëw na ci commune bi fan yii passé yëgu moom sax loolu c'est pour vous dire que politique bi ñu war a mëne mooy politique de développement mais politique boo xam ne ay jëf lañ wax loolu moom la ñu te moom la ñu président santé que vraiment ñu jàpp ci politique boo xam ne dañ koy teg ci dëkk mu bañ a nekk politique boo xam doo xam digal doo xam wax la loolu mu ne dëgg la président même les ministres daf leen daan wax ne lépp loo xam ko bu leen ko tijjee man lépp lu ma taxaw wax ko fii mën ngeen ko wax devant les caméras damay mais on nañ dem. lu mu yàgg yàgg mën na guddee mais du fanaan am incha allah euh, pour ma résumer ñaari point yooyu mooy yi nga xam ne moom la ñu bëgg a ubbee waxtaan wi en attendant que euh, ñu xam ne tey euh, résultat yi nga xamante ne moom lañu génn ci élection yi passé il faut que ñu def lépp pour maintenir ko ndax waruñu mën a ne rawee plus de 4000 voix 4000 mooy. 5550. waaw. waaw on a 5500. waaw léegi ma 5500 et mais xanaa bu ñuy yaatu yaatu yaatu waruñu daanu nga ci ñu rawaat wala li ñu daan gëmu ko. wala nga ëpp juróomi junniy baat nga yaasu ba ñu yàq la kooku xalaat moom ndax guur su cent mètres rawee nañu soixante mètres ñu soog a joxe départ waaye waaye xanaa lu ñuy yeex yeex tànk bi nag kenn waruñu dab donc mais loolu dañ ko war a ma ko ñu amoon faiblesse aussi ñu xool nan lañ ñu xool ne redresser ko commune Kër ñor ma ak village wax ñaari premier point élection législative deuxième point mooy stratégie pour que président de la république mën au premier tour ci ñaari point yooyu rek laay wax parce que yow ma fàttali assemblée bi fii tey président de la république daf la mas a bëgg daf la mas sible dafa ma konte ci yow pour nga ñëw ci wetam jàppale ko man nag ci antichambre président de la république laa nekkoon ma xam lu baax li muy wax ci yow xam aussi yow sa man-man élection locale ñëw mu yebal ma avant ñuy def ñuy ñuy ñu dem ci élection yi ma ñëw seet si la sa ni bi ma ma liste ba président le flux de sympathie bii daw ci moom ak bii dow ci man benn la su élection yi comme déposé naa samay liste ba pare su élection yi paase dinaa ñëw mais la nga def la nga waxoon loolu nga def xam nga dañ naan colonel ceci colonel colonel duma masa man militaire la duma masa maire mi li mu def yàlla moo ko def ci moom kolal itam li yàlla def ci moom yàlla ko def kenn mënu si dara ku mu neex ak ku mu naqari moom li yàlla def ah kenn mënu ci dara kooku yàlla moo ko def man di ko gërëme nag yàlla subhanahu wa taala bu loolu weesoo ma dellusiwaat nag ci deux points ordre de jour bi wax nga ko vous avez fait la constat vous avez fait l'analyse du ma ci dellusiwaat résultat yi wax nga lu tax fu nekk lu fa am et cetera et li ñu li ñu war a constat bi aussi def nga ko globalement kooku yaama ma vous êtes yaama stratège gën a xam duma ma dellusiwaat mais ma lay fàttali rek di la di lay kii la wax nga ko sax parce que yow bi ñuy dem yow rek mille voix nga am ñaari junniy voix nga am bi ñu demee local man maa topp ci yow junni ak juróomi téeméeri voilà waaye bu ñu boolee loolu comme ni nga ko waxee muy 5500 voix comme ni ko Combaan waxee di juróomi junniy voix ak juróomi téeméer mais loolu bu ñu ko capitaliser eh wax dëgg yàlla kenn du ñu seet te dañuy am lu ko parce que yow yow rek yow rek yow rek six yow rek yow rek mën ngaa gagné tund wi yëpp. département bi bañ la ko dénkee keroog maa ngi toog ca Thiès ministre yi toog sa kanamu maire yépp lañ ñu wax ni Momar Ciss mooy nekk président maire yi ñu tase palais ñu tase palais président gërëm la sant la ndax sa taxawaay yow kon wax dëgg yàlla ànd ak yow day yomb Malay, wax ni résultat yi ñu amoon ci ci local yi su neexee yàlla dinañ ko reconquérir dinañ ko reconquérir quant à la stratégie nag nan la def pour dem pour gagner yow wax nga ko benn stratégie ñu fi génne lu li nga wax wax nga ne dañuy def proximité te proximité mooy gagner 13 villages fukki villages ak ñett yi nga xam ne moom la ci commune bi ko reconquérir dinañ ko jotaat ci suñu loxo ma la yokkal la stratégie bi man li gis que pour le moment comme inscription sur les listes électorales mi ngi le 20 février dans trois jours fii ñetti fan war nañu commencé inscrire waat ci list électorale yi may ñaax sama mbokk militan yi sama camarade yi ñu jóg taxaw ñun ñëpp ñu takk fu oto amul nañ ñu wax fu oto amul ñu war a ñëw inscrire dinañu wut ay oto ñu indi leen ñu inscrire je crois que am nañu stratégie boo nga xam ni stratégie boo nga xam ni yow xam nga ko man xam naa ko te yow yaa ma gën a xam foofu mi ñu war a def pour gagner waaye comme inscription sur les listes électorales fii ñetti fan dañuy commencer ah ba déwén kenn du ñu jiitu ku manqué oto rek wooñu nga xam ni su fekkee ne dafa am commission inter yuy dem su fekkee ne fii la ñuy mairie ñu wut ay oto ñu ñëw jël si leen ñoo inscrire loolu daal laaj ci amoon lu may wax. sama xol sedd na tey nag sama yaay dafa wàññeeku may def saraxu juróom-ñetti fan bi te man lu ma am rek sama yaay sama yaay laa ba jeex takk gendarme laa commencé ba colonel gendarme simple ba colonel su ma ko amee su ma amee loolu rekk sama yaay a tax ma indi woon ko nag yore ko sama kër ba yàlla moom ko kon nag wax dëgg yàlla sama xol tooy na mais mënu bañ a ñëw mu parce que monsieur le maire dafay nit ku baax yàlla nag boole ñu nag ñu bokk xadara bi ma am kër Tivaouane mu am kër Tivaouane ñu bokk fa ñu jëm alors moo tax rek moom amuñu benn xarma yàlla vraiment moom benn musul toog fenn fu ñu taxaw nag gis nga li xew fii ministre yi toog nañu ñu ni leen li xew Kër Moussa da ngeen ko war a démultiplier parce que nit ñaa ngi tojante bopp di xeex di def lu nekk ci yeneen collectivités yi mais li xew Kër Moussa maanaam responsable APR ya fa nekkoon ñëw topp ci ginnaaw maire bi amul lu dul Kër Moussa Kër Moussa réclame président de la république xam na ko ñëpp xam nañ ko kon yàlla nañu yàlla musal ci seytaane te ñu delloo ci xol yi raxas xol yi ñu bokk ndey ak baay ku nekk yéene sa morom jàmm nit mënul jël lu dul sa wërsëg kenn mënul jël lu dul sa wërsëg ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant ñuy jiital ci nuyoo bi nag monsieur le maire Momar Ciss au conseil des collectivités territoriales ceeg ci nuyoo bi madame le maire Mame Fatou Ndiaye fàttewuñu imaam yi fi daje yépp Serigne Bass ak ñi mel ni moom ñëpp ci jataay bi ñu ngi nuyu aussi chef de village yi yépp ñu commencé ci Cheikh Saliou Fall secretaire général des chefs de village alors de la commune de Keur Massar di ci teg Amadou Gaye Faye moom mi nga xamee ne moo fi représenté ci ni ma ko waxee léegi le chef de village suñ ci paree ñu di nuyu camarade bi Benno Bokk Yaakaar yépp fàttewuñu ci kenn kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant fàttewuñu aussi suñu camarade parti socialiste yi teew yépp ak yi teewul ndax képp ku teewul aussi bëggoon nga teew ñu di dalal seen xel di leen xam ne xamal ne jot nañu nuyoo Ousmane Tanor Dieng président du Haut Conseil des collectivités territoriales jot nañu nuyoo madame Aminata Mbeng Ndiaye ministre de l'élevage jot nañu aussi Louis Thomas secrétaire général de l'union des coordinations départementales de Thiès ñu di dalal xelu le Bennoo Bokk Yaakaar yépp ndax lu xew di jàmbat le parti socialiste dafa yëngutu temps yi mais li mag ñi waxoon mooy li dëgg bëgg bëgg lu neex sikket wala bëgg meewum bëy du tax nga naa sikket nijaay loolu mooy lan mooy parti socialiste su bëggee ay tam du n'importe quel militant parce que militant bu nekk ci biir du wax dara lu rafet génne ko rek moy li ci war te seen responsabilité wa parti bi yépp li commencé ci base ba ci sommet jël nañu seen fulla ak seen fayda ñépp ñi nga xamee dañoo nekkoon ci biir parti bi mel ni sax ci biir fruit ñu génne leen sànni leen ca biti ci biir loolu li ko dëggal mooy le 3 ci weer bi le secrétaire général de l'Union du Parti socialiste Ousmane Tanordien au niveau de Dakar sous section a représentations cinq représentations. yoo xam fait dem nañu fekke ko fa génn ancrage dans le bien Bokk de ndax Macky Sall président de la République engagement yi mu jëloon min koy doxal ci amul fenn commencé ci sud ba ci noor est ba ouest foo xam ne la mu waxoon ne dina ko fa def defu ko fa donc en tant que républicain la engagement yi mu jël respecté na ko ñun ay républicain lañ ànd nañ ci ak moom nous restons dans le Benno Bokk Yaakaar ci biir loolu le 11 bii passé la présidente des femmes euh, du parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye woote na suñu section amoon nañ huit représentation dem nañu fekk nañu waxtaan ba la xewoon ci jataayu Ousmane Tanor rek moo xew ci jataayu Aminata Mbengue njaay kon ñuy dalal seen xel yéen ñi nga xam ne ñun. ak yéen ñoo bokk bennoo bokk yaakaar ndax parti socialiste aussi locomotive la ci bennoo bokk yaakaar Ousmane Tanor Dieng xam na ko ñun xam nañ ko keneen xam na ko te it suñu sàgganee waa parti socialiste ak waa APR ba ci AFP ba ñu ñàkk comprendre ne suñu ànd ci la suñu mucc nekk alors dinañ ko dinañ ko danañ ko réccu ñun ñëpp moo tax ci biir loolu nañ leen joxe woon loxo ca commencement ba noonu lañ leen wéyal di leen jox loxo seen mettit mooy suñu mettit seen bànneex mooy suñu bànneex loolu la sant ci parti bi te dinañ ko def ci kantanu yàlla ñu di leen xamal aussi ne. ñàkkuñu fulla ndax na ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxe woon am fulla du fuñ la gisee mu mel ni danga mer wante am fulla mooy soo xësee gis lu baax soo ci jàppee bu la ca kenn dindi loolu moo ñu bàyyi ci seen biir